ami ay fidèle internet di ñuy seetaan ci différentes plateformes yi fi ne ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay comme saa su nekk rek ni ñu leen koy defalee di ñëw fi nga xamante ni moom moo di fii ci Sen TV di fi fekk suñu papa Iran di waxtaan ak moom waxtaan bu am solo moo xam politique la wala sax li nga xamante ni moom moo di actualité ba tax na tey ñu ñëwaat tey nar a jàkkaarloo ak moom dina ci bokk li nga xamante ni moom moo di élection législative yi nga xamante ni génn nañ ci résultats yi ak yu demee ni noonu ak lépp lu concerné politique bi Oustaz nuyu naa la bàyyi ok fay nañ la di leen delloo nuyu di ñaan sunu boroom mu may ñu ñu fekkee ko ay yoon yu bari ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi nag ni mu demee ñépp gis nañu ko waaw dem na ci jàmm am na ci jàmm def nañ ko ci jàmm li ci des nag mooy liggéey waaw liggéey rekk a ci des li nga ne bu ma ko amul duma mën a liggéey nga am loola liggéey ci des waaw su ma amul lii duma mën a def lee nga am lii kon def lee ci des kon nag liggéey rek a ci des dara desu ci lu dul liggéey liggéey bi ñu may leen seen sago may leen seen sago ak dal ba ñu mën a liggéey ndax itam lu amagul at kenn ku ne commencé coow du sot nañ leen bàyyi noonu rek gannaaw yàlla def na liñ bëggoon am nañ ko nañ leen seetaan nag nañ leen seetaan waaw li ci des mooy réew mi yëpp mënuñoo ànd am xaalis déedéet réew mi yëpp mënuñoo ànd am xaalis déedéet kii day am kële ñàkk ki am dimbali ki ñàkk ñu dem waaw kii day am kële ñàkk ki am dimbali ki ñàkk mu jeex waaye bu fekkee dañoo bëgg ñépp am bu ñépp amee beew am te su beew amee at doo tukki waaw kon beew dafay am boo gisee yàlla doxali ni mu doxalee jox ñi xañ ñii dafa bañ beew am waaye bu joxee ñëpp ñëpp beew waa yàlla xam na li muy def li muy def xam na ko mën na ko ti mu ngi koy def faaliwu ci kenn voilà alors bokk na ci li nga xamante ne moom moo di résultat yi pourcentage yi nga xamante ni génnaa na 54 pour cent yi ñu amoon ci présidentielle yi moom la ñu amaat fii euh, loolu lan lay jàngale. ah lu muy jàngale mooy la fi nekkoon na fi ne rek. <laughs> loolu rek lay jàngale di la fi nekkoon na fi nekk ña soppoon a sopp rek waaye bu fekkoon te fa wàññeeku ñu ne soppee wàññeeku na waaye gannaaw la fa nekkoon moo fi ne ba tey kon loolu rek la waaw bu ko defee moom itam na góor góorlu rek parce que soppe dañ koy dimbale soppe kenn du ko rusloo nit bu la soppee ba topp la ba nga xam ne dañuy dem banaan kii lii kay moom kay affaire du sëriñ la ak nangam kii kay comme sëriñ la nangam nangam waaw loolu loolu loolu lépp du cofeel la rek cofeel la rek xale la xale la ñoom ñëpp ñu ànd euh, sopp ko kon nag bu mu leen rusloo na góorlu rek loolu laa ci xam waaw parce que lawoon bu fekkee ñëw na nekkaat loola laa fa nekk waaw ah, kon benn la rek waaw alors bokk na ci ki nga xamante ne moom moo di Bougane Gueye Dany bokk na ci élection yi mais gis nañu ni sax bokk ci li nga xamante ne moom moo di député yi ginnaaw bi nga xamante ne sonn na ci politique bi lool boobu ba léegi mi ngi jéem bëgg na nekk président yàlla suñu borom dogalut bëgg na tamit nekk maire lu nekk bëgg na ko nekk mais lu ci mën di doon rek dañu gis ni que yàlla suñu borom dogale na autrement naka nga jàngate politique bu Bougane mooy li nga wa rek yàlla dogal na ko yàlla kay lu mu na ah yàllaa ko dogal nit ki def na sababam moom li mu li ko war def na ko yàlla la ko neex la def kii li ko war la def kii li ko neex la def waaw bugaan def na li ko war dem na woote na sonn na lu ne daj na ko waaye yàlla lii moo ko neex te lu neex yàlla gën parce que xamoo lu cay topp waaw xamoo lu cay topp parce que defe naa Ousmane sonk war naa jàngal ñépp waaw ndax li mu daj génnee kaso dem nekk euh, li mu doon Basir Diomaye génnee kaso dem nekk li mu doon xam nga ni loolu loolu loolu kenn foogu ko woon bokkuloon ci li ñu programme bokkuloon ci li ñu foog bokkuloon ci li ñu naar far yàlla def loolu kon kay alhamdulilahi rabbil alamin buggaan itam na muñ rek na muñ rek <laughs> muñ moom baax na ko muñ muñ dañ ne as sabru laa yati illa bil xayri muñ da nga muñ ku muñ bés da nga kon muñ moo am solo rek waaye boo muñul doo muñ ku muñ da nga muñ incha allah Mm. Euh, façon politique Bougane naka nga ko jàngate parce que ñu bëri ci Sénégal yi dañu koy ŋaaññu comme quoi que dafay maanaam attaqué Ousmane Sonko à tout moment naka nga jànge façon politique bi nga xamante ni moom am ñëwee na ko façon politique amu fi politique rek a fi ne politique rek a fi ne moom daal li muy def day wuut kuy wuut nag noo mën a amee baax na koy wuut noo mën a amee baax na waaw gannaaw day ut day ut rek waaw politique u Bougane bolooti moom politique yee yem kenn ku ne ak fitam ak ñàkk am fitam rek waaye am na ñoo xam ne bu ñu amul fitu bugaan danañ wax lépp lu bugaan wax danañ ko am waaw danañ wax lépp lu bugaan wax waaye nag euh, xëy na ñoom ñoo ko dañ ko manewul walla jubluwuñ ko wala neexu leen looloo ci nekk waaye loolu lépp amul solo nañ wéeru ci yàlla rek waaw yàlla na ko yàlla dimbale rek waaw loolu rek am solo ku yàlla dimbale daal nga am dimbal ku yàlla dimbaliwul doo am dimbal waaw ku yàlla dimbale da nga am ndimbal ko yàlla dimbaliwul doo am ndimbal kon nañ dem ci ndimbalu yàlla rek moo am solo gis nga mbir yi loo wut wut wutal yàlla loo wut wut ci àdduna wutal yàlla rek dugalal yàlla seen mbir soo ci dugalee yàlla rek baax na boo ci defee yàlla boo amee sant yàlla soo amul sant yàlla waaye boo ci dugalee pexe rek boo am boo amul day métti ci yow voilà voilà alors yow sax naka nga gisee kaaw Moustapha Diakhaté gis nañu ni moment bi ñu toll yoon tegaat na ko loxo ginnaaw bi nga xamante ni génn ci plateau yi ñu bëri jàpp ni ko dafa saaga waa Pastef wala sax kàddu yu teggi niw teg na ko ci ñoom ba yoon teg na ci moom loxo kooku du ma wax ay waxam ay waxam du ma ko man daal ku wax yóneen tibi li ko wax du wax say wax dara du ma wax ci waxam dara waxuma ko ci moom waaw waaw ci noonu rek ñu nuyuwaat ko bu baax lii ñu taxawaat ak moom ba tey rek ci li nga xamante ni aussi moo di politique oustaz euh, nga xamante ni tey yaakaar na ni war na ko def ci askanu Sénégal si gis-gis lan la ginnaaw jox nañ leen li nga xamante ni mooy majorité assemblée ndax wax nga ko liggéey moo def. Ah, sama gis-gis kay lenn la rek li li ñu war a defal Sénégal mooy li Sénégal bëgg paj mi nañ ci taxaw njàng mi nañ ci taxaw courant bi nañ ci taxaw ndox mi nañ ci taxaw. lépp lu a itteel Sénégal nañ ci taxaw li itteel poosu nit ñi ne kenn ku ne yaay wul loo def sa poos waaye kenn du la ko wutal gouvernement buñ ko tegee pour itteel réew mi la mu dem ci na seet li nga xam ne moo arrangé Sénégal ñu def loola li arrangé wul Sénégal ñu moytu loola loolu rek mooy mooy mbir mi li arrangé Sénégal nañ ko nañ ci jublu li arrangé wul Sénégal nañ ko teg fële poos yi nit ñi kenn ku ne sa poos da ngay wut loo ci def waaye bëgg bëgg ñëpp dem ci état naan wuy nangam nangam duñ joxe duñ maye duñ nàngam ku la ne loolu tax ñu teg leen fi loolu taxul ñu teg leen fi dañ leen fi teg pour réew mi lu doxal réew mi suñu ndox mi suñu courant bi suñu téléphone mi suñu faj yi suñu yoon yi suñu tali looloo tax ñu teg leen fi nañu sonn ci loolu waaye buñ sonn ci poos yi nit ñi buñ ko defee duñ dem waaw duñ dem poosu ku mën a doon buñ ko defee duñ dem ku bëgg dara dangay def dara ku bëgg dara def dara am dara ku bëggul dara doo def dara doo am dara waaw kon bu buñ bëggee dara nañ def dara ku bëgg dara da ngay def dara am dara waaye jaaxaan rek di caaxaan di font di tappale loolu du mayee dara mhm. waaw loolu du mayee dara dara dara dara nit ku ne gis nga di du la may dara njubadi lum la may dana la ko xañ bis waaye njub lum la may du la ko xañ njub dafa baax sel dafa baax yiw dafa baax lépp dafa baax kon nag nañ ko def noonu rek. Mhm. bokk na ci projet boo xamante ne saa su ne dañuy dégg ci le premier ministre mu koy wax ci ndawu Sénégal ndax am nga yaakaar tey ndawu Sénégal buñ leen woowee ci loolu dinañ ko def. mooy lan su ne dañuy dañuy dégg ci ay kàddu mu wax ci wàllu mbay mbay mbay fi Sénégal toll ak jeunesse bi ndax dinañ am courage bàyyi Dakar génn dem mbay ju Sall. ah buñ ko amul ñoo xam. buñ ko amul ñoo xam waaye mbay moom moo ñun mbay mooy suñu maam suñuy maam mbay la ñu xam réew mi mbayee indi fii fenn kenn indiwu ko fii mbayee indi fii kon nag buñ ne leen mbay nañ leen ne jox leen ñu mooy mbay mbayukaay jox leen ñu mooy yu ñuy mbayee su ngeen ñu joxee mooy mbay ñu mbay bu ngeen joxul mooy mbay nag du ñu mën a mbay ah bay moom moo indi Sénégal fii suñu maam yi mbay rek la ñu xamoon léegi la nit ñi xam Ndakaaru bi ñu xamee Ndakaaru àdduna tukki waaw ndax réew mi ki fii fii kenn dëkku fi de Dakar gi kenn dëkku fi waaw kenn dëkku fi dañoo dox ba daje fi rek di wuur si di wuur si daje fi rek bala nga koo xam tabaski jot bu tabaski jotee ñëppay dem bàyyi fi kër kër yi daal la fi dëkk kër yi ñoom fi lañ dëkk waaye nit ñi dëkkuñu fi <laughs> kër yi ñoom fii la ñu dëkk waaye nit ñi ñoom dëkkuñu fi waaw saa ma relancé waat la tuuti parce que dañuy seetlu à chaque Sénégal <coughs> dafay mel ni dafay am benn warma wala benn taxawaay boo xamante ne dafay def ci diine bu ñu gisee nit génn mën a taxaw sëriñ wala nit génn mën a taxaw li nga xamante ne moo di yonent bi kenn du ko arrêté kenn du ko wax dara bu taxawee saaga wala mu taxaw saaga benn nit yoon def liggéeyam te diine Sénégal naka mën a taxawee. déedéet déedéet déedéet diine dafa am ñu ko nekkalul waaye ñi nekkal diine ñu ngi waxal diine c'est-à-dire dañoo amul doole waaw ñi nekkal diine ñu ngi waxal diine dañoo amul doole waaw bu ko amul doole nag amoo doole soo muñee dana baax parce que yàlla waxtu ko neexee mu faj. yàlla waxtu wu ko neexee mu faj lu mu bëgg a faj dara dara nga ci manul waaye bu ko neexul nag du faj waaw kon nag diini ji moom buñ ne dara buñ saagaa yonent bi wala ñu saaga yonent yi wala ñu saaga benn nitu yàlla ñëpp ne pat waaye bu ñu laalee état kenn ku ne jóg waaw état moo am ñu ko nekkal état moo am ñu ko nekkal ñooñu nag dañuy wisilan ba nga xam ne ku leen laal ñu dal sa kaw parce que mënoo fal dara ba pare dal ci kaw loolu manul nekk kon nag képp kuy laal yonent bi man seex waxuma ko waaw yaay yonent bi bàyyi yonent bi ku leen di laal baxuma say wax say wax dara laa ci waxul yaay yonent bi bàyyi yonent bi dara waxuma ko say wax parce que ñu ñu woy tagg leen fu ne yow nga xëy ne gënul sama ndey gënul sama baay man seex waxuma ko man bu ma kenn wax koy wax mm-hmm. waaw euh, ku bu dem yoon teg ko loxo lan nga jàpp ne mooy war nekk taxawaayam du ma ci wax de du ma ci wax de duma ci wax de loolu moom duma ma ci wax mukk wax naa la ko waaw. Mm-hmm. Mm. doo ci wax. Mm-hmm. Euh, kon état mën a yokk diine ba nit ku nar a waxati lenn lu bon ci diine wala lu ñaaw nga xam ni lu muy yokk diine amul diine kenn mënu ko yokk ak diinu lii wax dii yàlla nee diine maa ko moom kenn moomu ko kon yàlla kenn mënu ko yokkal dara kenn mënu koo wàññil dara ndax ak diinu lii wax di maliki yow mi diini jàng nga ko kooku moom lu waay gàtt-gàtt aliwo dang nga ci yegg maliki yow mi diini iyaaka naabudu faatee la kenn ku ne xam na loolu gannaaw yàlla moom moom diine ki moom diine kenn mënu ko yokkal kenn mënu ko wàññil nañ ko bàyyi ak diineem rek waaw nañ ko bàyyi ak diineem ku am chance daal boole na la ci diine ji ku amu chance boolewul la ci diine ji yaa xam saa dañoo gis ne que ci wàllu diine boobu noonu suñu suñu loi réew fàggu na benn benn article boo xamante ne si da leen défendre mais application bi moo nekk loo xamante ne si lu tàdda la moo waral moom. luy loolu. tey jii nii am na yoo xamante ni soo ko tegee ci diine ji wala kilifa diine loi bi ci jëm moom dafa teg article boo xamante ni da lay teg ay daan bi moom moo nekk li nga xamante ni moom moom la ñu deful maanaam mettuñu ko en vigueur daal pour yow lan moo waral gàllankoor bi. gàllankoor bi ci ñoom la gannaaw ñoo ko def. ñoo def application bi. ñoo ko war a indi ba nga xam ne ku ko def itam ñu dal sa kaw def nañ ko daluñ seen kaw kon ci ñoom la ñoom ñi ko sos ñoo ko def parce que boo sosee dara danga koy commencer ci ñi nga xam ni ñoo def lu ñu warul def ko dal ci diine nga dal ci kawam ko dal ci nitu diine nga dal ci kawam waaye gis nga loolu lépp amul solo nitu diine yi ñi nga xam ne ñoom diine leen ñor li nga diine ba mu sosoo ba léegi nit di ko nekkal ba léegi dañ koy xeex kenn mënuñ ci dara waaw sëriñ tubaak ak Alaaji ak ñëpp dañ leen di xeex yonent bi ak yonent yi leen jiitu ñëpp dañ leen di xoolal yonent bi ba mu commencé waaw la xoolal xoolal fa mu commencé niñ ko xeexee ak niñ ko def ak damm nañ bañam lu nit def nañ ko yonent bi loolu moom fi lañ ko fekk ñu baax ak ñu bon ñu baax ñi ñu ngi dem ñu bon ñaa ngi leen sànni xeer pexe amul ñu baax ñaa ngi dem ñu bon ñaa ngi leen sànni xeer pexe amul ñu baax ñaa ngi dem ñu bon ñaa ngi leen sànni xeer pexe amul noonu la yàlla bindee àdduna waaw waaye lépp du baax ñii dañuy baax ñii bon ñi bëgg lu baax ñii bëgg lu bon ñi bëgg lu baax nag góor góorgóorlu isa kunta fii am amrin fakun fii imaamu ali nee na loo nekkati nekk ci rek waaw boo nekkee ci dara sëgg rek bul faale kenn bul faale dara mooy tax nga yegg fa nga jëm waaye kuy bëgg a tontu nit ñi bëgg a wax nit doo dem doo dem fenn dangay ngay fexee rek nekk ci li nga nekkal yow rek bul fayu bul tontu bul def de boo demee ba yegg nag jeex na boo yeggee fa nga jëm kay jeex na li nga bëgg am nga ko sawaar waaw kay waa ci leneen loo xamante ne rek dañ ci génn ginnaaw parenthèse boobu noonu nga xamante ne def nañ ci yaatal bu am solo lépp rek ci Sénégal oustaz naka ngay jàngatee Sénégal ba léegi da ngay gis tey nit am problème ci boppam wala problème famille wala problème sax ak ay waajuram léegi ci internet la indi problème yi pour mën ko fa régler euh, jàngat boobu lan la ci Sénégal. ci euh, euh, ci internet la ñuy indi problème yi pour mën ko fa régler ak ci tribunal yi. dañ ciy booli tribunal yi. parce que sëy boo gis. Mhm. ñu ngi ko fasee ci jàkk ya waaye buy tas mu nga jëm tribunal. ah mhm. suuf soo gis bañ koy jaayante kenn ñëw ko waaye ba ba ba coow lay am mu nga dem tribunal sëy ak suuf moo fi am problème. tribunal mhm. léegi internet yi mooy ñu amul kilifa rek parce que sëy amul amul internet amul dara luy internet yow siiwal sa bopp mhm. da ngaa bëgg a siiwal sa bopp dafa am loo xam ne jarul yóbbu ci yoon sa famille nga yóbbu ko ci internet sa mbokk yóbbu ci internet sa dëkkandoo nga yóbbu ci internet nga ko mbaam mu ngaax sax nga yóbbu ngaaxeen ba ngi internet loolu mooy lan loolu du dara nañu fexe ba nekk nit ñu yiw nit ñu jàmbure nit ki day dugg ci lu yoonam nekk waaye lu yoonam nekk war cee dugg fi mu ne nit ñaa seen lu seen yoon nekk ku ci nekk na yaa ngi mbir moo xam ne bëggoo mu siiw te bu siiwee àdduna tukki te yaa ngi rey sa bopp ci mbir nit yaa ngi rey sa bopp ci mbir nit ñi wëy diw nangam diw nangam diw nangam te yow yaa ngi mbir moo xam ne bu siiwee àdduna tukki waaw kooku du noonu da ngay fexe ba nga jàmburi ci nit ñi fexe ba nekk wax lu sa yoon nekk def lu sa yoon nekk yóbbu sa yoon si dara waaye yow defoo dara lu sa yoon nekk loolu doxul. Mhm. waaw nañu def lu suñu yoon nekk rek moo dox. Mhm. loolu mooy mbir mi. Oustaz doom war naa defal waajuram ba bàkk. ah bu ko bu bàkkoo daa dof. Hmm. bu bàkkoo daa dof di parce que wuy juróoma war a bàkk moom mi ko jur. mi bàyyi mi ko jur ak ndey mi ko jur ñoo war a bàkku ne cëy sama doom ji. maa ko defal lii maa ko defal lii maa ko defal lii yàlla itam bàkku ne ko maa la defal lii mu jeex waaw. ku bàkku rek am ko bàkku doom bu bàkkoo jaaxaan bàyyam mbàkku ndeyam bàkku ne ko buñ la jur doon doo def li yàlla itam bàkku ne ko bu ma leen jur bindu leen du ngeen def li kenn ku ne amoo looy bàkku ci sam kanam morom yàlla rek a war a bàkku doom dafa war bu amee dara na sant yàlla mi ko ko may ba mu mën a teral ñaari wuy juróom ba mu mën leen a defal lu baax na ca sante yàlla loolu waaye bu mu fa nee di tiitaroog man naa nga mag di damm mbagg ak di def nii di biij biij ak bajax bajax ak ñamax ñamax yooyu yëfu ñàkk fayda yooyu ah, mm, yóbbu naa sama yaay màkk yóbbu naa sama di kat xale yi mbir yi yëpp yaay la mbir yi yëpp yaay la bàyyi bokkul bàyyi bokkul bàyyi moom bàyyi fële lañ ko bàyyi waaw bàyyi waaye moo taxit yàlla deful deful li parce que boo fekkee bëgg ngaa bëgg nga sa ñaari jur yi da ngay wax ne man de suma ñaari waajur su ma amee dana danaa leen dimbali su ma amee dara dinaa dimbali sama papa dinaa dimbali sama est-ce que xam koy principal principalu kër hmm. mooy baay baay mooy principalu kër waaw yaay doom ci bàyyi la ñu topp bàyyi jiitu yaay topp ci doom topp ji waaye maire yi leen ci dimbali waaw su man kay waaw waaw seen kër baay gi li ma ci daj na bu amee yàlla bu mu am wujji nag soo amee wujj nag la wax ji ñaaw waaw seen kër bàyyi gi li ma ci daj dajoo ci dara dara nga ci dajul ah, dara nga ci dajul da wax rek di sànni waaw da da ngay wax rek di sànni loolu du waxu dara nañ leen ñu bàyyi loolu bàyyi xale yi ñuy influencé seen kaw wuy juri loolu doxul boo influencé sa doom ba mu dal ci kaw sa kaw kaw baayam yàqule na yàqule na dootul am dara dara doom kenn du ko influence ci kaw wuy juram waaw daxan da danga koy dimbali ne ko fonkal sa baay dimbalee sa baay ndax jox nga sa baay ndax ma dimbali nga sa baay loolu la yaay daan wax bu njëkk suñu yaay yi mu musuñoo nangoo am dara dara boo leen jox ñu demal joxu sa baay waaw suñu yaay noonu lañ daan def man fekkee naa ci lu bari sa yaay loo ko joxu mu ne joxal sa baay ak si demal yóbbul sa baay sa baay baay moo daan nekk buuru kër gi waaw buuru kër gi la daan doon léegi nag baadoo la kër gi la waaw baadoo la kër kenn faaleetu ko moo taxit daara doxul bu ngeen bëggee mu dox bàyyi leen xel bàyyi bàyyi leen xel bàyyi bàyyi leen xel bàyyi ndax mbir yi dox su ngeen ko jëmee ci ndey du dox parce que ndey bàyyi ko fi indi te yàlla du du juum ndey bàyyi ko fi indi nu mën a mel bàyyi ko fi indi doom nu mën a mel bàyyi ko jur kon nañ leen bàyyi xel bu bàyyi moo gën waaw kay. mais euh, dafa nekk loo xamante ne léegi wax nga ko dafa dem ba booy nopp nit c'est rare nit wax tudd baay yaay rek yaay rek ah, waaw mooy li ma la wax rek boo tuddee sa yaay yàlla bàyyi la ak moom sa yaay rek <laughs> yàlla bàyyi la ak moom wa qadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyaahu wa bil waalidayni ihsaana yàlla nee bu ngeen paree sama tool dem leen seen toolu wuy jur yi wa bil waalidayni la wax waaw seen ñaari wuy jur sa papa ak si de koo góorale waaye bu fekkoon daa jigéenal waalidayni ñu xam ne ndey ngay jiital waaye daf koo góoral wa bil waalidayni ihsaana waa nga nga nga bàyyi xel sa ñaari jur moo gën waaye des desal ginnaaw sa papa baaxul soo ko desalee gannaaw boo ko seetee yàgg sa yaay da ngeen wéet torop da ngeen wéet torop torop torop torop torop da ngeen bëgg lu leen jafe da ngeen bëgg lu leen lu leen yombul loolu wéetal sa waajur a koy def kon nag nañ leen jàpp jàppale waajur yi loo wax ngeen ne damay di sama papa loo wax ngeen ne ma dem sama papa booy génn tàggul sa papa sooy def dara tàggul sa papa bu la bàyyee nga dem bu la bàyyiwul nga toog waaw waaye yaay maa ngi dem fii ci ñëw te rek loolu bàyyi nga ne tookat yor kurusam nga romb sa ndey sa bàyyi dama ne bàyyi baadoo la rek baadoo la bu nuy ci kër la rek tum ak aji tumuranke la rek bo boolewuñ ko ci dara ngay dem romb sa bàyyi dem tàggu sa ndey hmm. dem ñëw ne ko yaay ñëw naa waaw ah waaw baa sa yoon wi neex da nga ah, kay yaay neexul lu muy neexee du neex parce que ko war a neexal danga koo bàyyi gannaaw waaw ka nga war a neexal moom nga war a bàyyi gannaaw ndax barke bàyyi yomb ndey waaw soo bëggee loo am mu am barkeel di sa baay loo bëgg boo bëggee mu ah, loo am mu am mu yomb la fonkal sa ndey kon nag fonk leen ndey yeeg fonk leen ndey yeeg fonk leen ndey bàyyi ndax lu ngeen bëgg mu yomb leen bu leen topp seen bakken bu leen topp seen adduna bu leen topp coow li nit ñi coow topp leen lii yoon ndax ngeen am li ngeen bëgg. Mm. waaw kon euh, barke boobu ci bàyyi la nekk lu am solo la oustaz ndax euh, yaakaar naa ne Sénégal dem nañ ba lépp rek dañ naan bu la sa yaay ñaanalee rek soo génnee dangay am di nga bëgg da ne ci kër sa baay di fay sa jàng nga dem ba mën dépense bi si loxo yaay bi nga koy jaarale baay bokkatu. waaw ba tey yaa xam. nga xam nga bàyyi bokkatul mm. bàyyi bokkoon na ba méttee ba méttee mm-hmm. bokk na waaye bi mu neexee mm. génne nga ko waaye dana naqariwaat nag mm-hmm. neex gi dana naqadiwaat ndax li ngay feyeku danga nga dem a dem ba am problème yoo xam ne yaag sa ndey rekk koy xam ndax li ngay feyeku du ko fay mm-hmm. problème yi du ko faj nañ leen ñu bàyyi xel wuy jur yu góor yi nañ leen ñu bàyyi xel wuy jur yu góor yi xa benn góor de nee na ma doom su ma xamoon ne man samay doom nii la ñuy mel du ma wut jabar ah <laughs> wallaahi nee na ma su ma xamoon ne su may doom nii lañuy mel du ma wut jabar mukk mukk mukk mukk ndax ma ne ko ah, eh, yaa xam ndax itam eh, ku sa doom eh, wan ginnaaw nga toog di ko seetaan rek bu yàggee dana wëlbati ko baa bu amee chance su amee chance dana wëlbati ko bu amul chance nag dana continuer mhm. bu continuer nag dana gaañu waaw kenn ku ne daa téye sa way jur su ma amee dimbali sama ñaari wuy jur waaye da ngay dékku naan man sama njàng mi dama bëgg mu baax ba ma dimbali sama yaay dama bëgg a dem nga jàppale ba ma dem bitim réew dimbali sama yaay mais ni ko amul bàyyi kenn rek amul baay kenn rek amul bàyyi mooy yonent Yàlla Isa moo tax ba muy wax mu ne wa barran bi waalidati waaw wa barran bi waalidati ndax ndey rek laa mu ni yàlla daf ma sant ma fonk sama yaay dimbali sama yaay ndax aw ma baay waaye boo amoon baay ñi mu la wax loolu waaye amul baay waaw kéemaan la juddoo moom yonent yàlla Isa kéemaan googu mu juddoo nag moo tax suñu borom ne ko waxal ne wa baran bi waalidati waaw kay koo ko sañ na koo wax waaye yow nga am baay am ndey bàyyi sa bàyyi fële naan sama yaay laa bëgg a jàppale sama yaay laa bëgg a defal lii. Mm. sama yaay laa bëgg a defal laa. moo tax lii ak laa dana fi yàgg doo ko def. dana fi yàggati doo ko def lii dana fi bokk. boo boo waxee lii ak laa dana fi yàgg yàggati doo du sotti. nit ku nekk dafa war a bàyyi xel la muy def waaw. gis nga boone sama yaay ñu yërëm la baax na defal waaye buñ la yërëmee loo am dara doo ko am daara ñi la yërëm duñu la defal daara dara dañ la dul defal ah waaye yow de ndeysaan man de billaay su ma amoon naa la dimbali ndax ni nga mes sa yaay xanaa nga am junni bi junni lu muy faj junni lu muy faj lan lan lay faj ci ko bëgg a defal yaayam loolu du waxu dara dañoo fàtte wuy juri ci ko fàtte sa baay doo dem waaw man sama papa dund na ba dem sama yaay mus yi nga bi sama papa gaañoon Euh, bi ñu seeti alalam day ne ah moom de eh, yore na jaara nangam ci alal sama yaay ne laa ilaa xalaatuma koo jël xalaatuma koo jël Ablaay lu ma ko jox moo ko moom waaw loolu lu ma ko jox moo ko moom bu ma ko kenn waxati waaw mais ak leneen loo xam ne duma ko nettali loolu loolu la nit di mel ak noonu la doom eh, jabar di mel parce que noo mel rek noonu la say doom mel doom jàngaaniwul kat ndeye may sëriñam doom joo gis jàngaaniwul ndeye may sëriñam nu sa ndey mel rek ngay mel waaw buñ ne doom ja ndey ja sa doom sa ndeye bon waaw gis muy fuñ fuñi rek bu ndeyam nekkoon ku baax doo def du fuñ fuñi waaye doom jàngaaniwul ndeye may sëriñam ku yee bu xam loolu waaw bu doom jàngaani woon ah, kay waaye ndeye may sëriñam ndee la ëmb moo la imbi moo la nàmpal moo la boot moo la def lépp moo la ko defal moo tax mooy si sëyin waaw li nga mel ci sa ndey rek nga ko mën a mel waaw bu ko defee ñu xam loolu eh, ni loolu daal mooy li nekk mën naa bañ a d'accord ci sëy ndey day maye doom ah, bu ko defee moo xam waaye mujj ga du baax islam nangu na ko waaye nanguwu ko nga naan léegi mu islam nangu na ko ban nangu nit ñi gisoo benn waaye nee na ma waaw dégg gis nga xam nga jigéen moom bu laa dee bu amul jëkkër ba laa dee ñu may ko jëkkër ba pare. Mm. doo ko doo ko suul dégg seetal waxi dof yooyu. Ah, loolu existé wul. Ah, yow bu ma fooy waaye itam ah ban existé loolu fu muy fu muy fu muy amee yow kuy dund amul jëkkër bu dee nu muy amee jëkkër. waaw bant lan bant ba xanaa bant ba bëggul dara sax. loolu ay caaxaan la. loolu lépp nga di ko dégg ci réew mi eh, nga gis koo xam ne day dee jigéen de. wallaahi ñu may ko jëkkër doo ko suul. waaw may ko jëkkër doo ko waaye léegi nag jëkkër jëne dem ci bàmmeel ba fanaan fa. jëkkër jëne am fu la nag dem ca bàmmeel ba di fa fanaan ak ndaw si ba xam dama fa dama fa lu mu fay fekk. waaw lépp ay waxi caaxaan la ak ñàkk jàng boo jàngul lu ne ngay dugg aada junne dina dugg loolu du wax du waxi dara nañ leen fonk wuy jur yi nañ leen fonk wuy jur yi. nañ leen fonk wuy jur yi bàyyi ndey nañ leen leen fonk lu ñu bëgg ñu bëggal leen ko lu ñu bañ ñu bañ ne leen ko nekk seen militaire di leen maajal di leen dawal bu ñu dee lépp yombuñu waaw lépp yombuñu waaw. mais oustaz euh, diine wala jàngale ci yonent bi fi muy doxee boo amee benn joxal sa yaay amaat benn jox sa yaay amaat benn jox sa yaay loolu dafa mel ni sénégalais dañ ko desee comprendre soo cee teg bàyyi parce que du ñoo favoriser ci li favoriser yaay moo war. mais ni ñuy doxee diggante ak Baye Dieng dafa am ci diggante bi ma ni boo déggee boo amee juróom joxal sa ndey sax ndey loo ko jox bàyyee ko moom loo jox ndey mu jox ko bàyyi waaye ndey joo xam ne loo ko jox mu banque doo ko jox daara daara doo ko jox waaw loo ko jox daal moom mu banque ci nangam nangam dool du dara waaw bu déggee ni soo amee ñett joxal sa ndey jëlal benn jox sa baay ndax sa baay eh, sa yaay da ko jox ñett mu boole benn mu ñeent waaw muy ñeent ndax moo yore kër gi waaw moo yore waaye yaay yorul kër yaay yorul dara jigéen ñi léegi da yoruñu dara waaye jigéen njëkk ñi woo ñoo yoru kër gi jigéen njëkk ñi xam nga loo daan joxe dépense xorom xorom kese xorom xorom xorom men xorom noonu lu waay dama lay won ni lépp a ngi ci kër gi waaw lépp a ngi ci kër gi xorom rek a manqué boobu jigéen ëppalul boobu jigéen euh, euh, melul mel ni boobu jigéen dafa dafa dafa normal waaye jigéen ñi li ñu bëgg léegi benn góor mënu ko waaw moo tax sëy du taxaw waaw xam nga ne xam nga ne yow jël sa doom bu jigéen mu ne man bëgguma kii laa bëgg sa yaay ànd ca sa papa ne man de duma ko may nga ne ko waaye yaa xam ko am néeg ndey am nga néeg bàyyi waaw waaw ku am néeg bàyyi am nga kër ndey léegi ñu jël najaay ji ñëw maye ko sëy ba dem tuuti kalaj kalaj yàqu fuñ mujj tribunal tribunal luñ buñ ca boole woon bàyyi loolu lépp du ci am waaye bàyyi dafa jàmburi bàyyi daal boo juree ni nga war a juree def li nga war a def doom màgg bëgg a mooy mooy la bàyyi ko di ko seetaan rek dana ñëw bu ñëwul du amul chance waaw loolu lépp ah ci ci ci waru waru waru jur la ah waru garu wuy julla dañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah mm-hmm. am na solo fa acca boo amee leneen loo si dolli rek nga duggaat ci euh, ci li may ci dolliwaat rek oustaz dafa bokk tamit ci actualité ndax yaakaar naa ne am na ñu si weesu woon am polémique bu amoon ci wàllu mystique ak ñi nga xamante ne mooy diine ñu demlawaat nag ci combat Modou Lo ak euh, Siteu ñu bëri nag di wax ci wàllum euh, mystique mbër mi dafa diine we mbër mi alxuraan gi la topp est-ce duñ ko jàpp ci wàllum gàllaaj